assalamualaikum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñoo ngi nuyu mbokk senegal gep di ñaanal Serigne muntaha mu yàgg fi lol te wér di ñaanal Serigne mamour gawal mi xalif mam chanta di ñaanal Serigne Jili mbake di ñaanal Serigne chanta mbake Mbacke muy jëwrinam Serigne Mourou Mamoun mbake fi de Serigne Modou Rokhaya petit fils mam chanta di wax ci turu mouvement Darou Salam moo ñor ak ci ñoo xam bokkuñ ci waye tamit ñoo bokku Darou Salam boko aw gisin ci lalu Salaam loolu su ko waxe muy rew mi nga xamne mom lañ bok moñu moñu fi taxa dajé ak ak Daaru Salaam gi nga xamne mom lañ bok Macky Sall mi nga xamne moy ki rew mi njiitu rew mi ñu falon ko depuis 2012 di ci juroom ñaari at ci ren mandam di bëgg mat waye mbolem lim digënté won ak Sénégalais yi defu ci dara yaq sun alal tey la réew mi jël marché yi jox ko tubaab yi réew mi dara doxul mu ñàkk na ci doomu aadama yi kenn gisu sa bopp ci réew mi bu juróom-ñaari at man nag mu bëgg a forcé waat toogaat fi muy loo xam ne kenn du ko nangu ndax réew mi metti na jàpp na jàpp na ñu tëj ku ne bu kan daala bëgg nekk mu tëj la mu doon loo xam ne ñun duñ ko seetaan ñun nag sëriñ si dañoo am responsabilité ci réew mi ñu war ñu bokk ci ñi nga xam ne dañ ko war a jël man Modou Mamoune Mbacké fii ci Daaru Salaam nag depuis mu faloo ba léegi ma jël sama responsabilité ci li nga xam ne mi ngi koy doxal noo xam ne ànduma ci waaye dafa am nag beneen côté boo xam ne ñun waa Daaru Salaam ñun bi mu faloo léegi dañoo féetuwut fenn ñun bi mu faloo ñaari at ren musu teg tànkam Daaru Salaam musu fee def dara juróom-ñaari at mat ñu koy xamal ne ñun waa Daaru Salaam Daaru Salaam bu mu fi jaar bu mu fi yónnee di wax képp ku aju maam si ci ne ci biir réew bitim réew Macky Sall de falu na bu juróom-ñaari at yi mat teg na ay programme pour dëkk religieux yi wala wu ci Daaru Salaam mu wër nañu gos droite ay yoon ñëw na ci dëkk bi ak lu ko wër mu tudd ko Daaru Salaam may wax képp ku aju maam si Anta xam ne Daaru Salaam moom Macky Sall mosu ñoo boole ci dara mosu ñoo boole ci programme surtout religieux mosu fee jaar mosu ñoo faatul de bañ ñëw fi jaali si ñu loolu nag suñu diggante loolu waa Daaru Salaam la. waaye nag may wax ñi nga xam ne ñoom laa bokkal sëñ Tuubaa ne leen Macky Sall yéene ja nga xam ne moom la amoon ci ne sëriñ si ay citoyen ordinaire lañ loolu mosu caa jóg daal dem ba ci yàgg mu xam ne réew mi de réewum nit diine yi la réew mi de réewum sëñ Tuubaa la li ma nga xam ne mooy Macky Sall bu ñu ko falaatee li muy njëkk def mooy titre foncier Touba bi fa mu yemoon laata Abdoulaye Wade du ñëw dina ko fa delloowaat ndax Abdoulaye Wade da koo yokkoon bi mu ñàkkee fi bëggoon na ko delloo foog Abdoulaye Wade fekkoon waaye bañ a perte te présidentielle yi moo tax bu faloo li muy njëkk def dina ko del dina ko delluwaat fa mu nekkoon faytu na fexe ba Touba di fay ndox mooy président bi nga xam ne moom la xalifa général murid njëkk a ñaan mu bañ si Sidi Muxtaar ñaanoon na ko ci mbirum Karim Wade mu bañ sëñ Muntaxa ñaan na ko ci mbirum Mbaye mu bañ kon moom mu xamul cëru yoonu murid moo tax bu ma gisee ku sant Mbàkke di ko jàppale di jàppale Macky Sall man dina ma jaaxal lool ndax ni nga xam ne ñàkk na koo sagal yoon ñàkk koo déggal xalifa général murid naka nit mën a bokk aju Sëñ Tuubaa ba pare di jàppale Macky Sall man loolu jaaxal na ma loolu ci loolu ñoom ñëpp ñoom ñu gën ñu koo xam bu loolu jàllee mi nga xam ne ñun Sénégal yëpp li nga xam ne dañ ko bokk muy réew mi Macky jël na suñu alal junni milliards ak ñeenti téeméer def ci ak saxaar goo xam ne 30 kilomètres képp la loolu amul benn njariñ dem fekk société français mu jox ko boo xam ne daanu woon na jël juróom fukki milliards def ko ci ab salle de conférence moom daal dafa mel ni xamut réew mi li mu soxla ak réew mi nit ñaa ngi am problème mu faju nit ñi am problème naan ñi am mu faju euh, euh, ñi ñi am na dëkk yoo xam ne boo fa demee dinañ dem ñeent fukki kilomètres pour mën a mën a faju am dëkk yoo xam ne dinañ dinañ doxal ëpp fanweer kilomètres pour mën a am ndox yooyu yëpp nag bu amee yooyu di priorité mu bàyyi ko fi di jël ay junni milliards di ko def ci ak saxaar ngir lan bëgg a suqali société français bu daanu te ñun sunub xaalis la ndax xaalis boobu mooy ñaar dërëm ya ko jën tàngal ka fay facture la ci aju yooyee lañ dajale muy muy xaalis réew mi yooyu yëpp boo boo ko dajalee nag ak yooyu mu ñu def yëpp ci yoo xam ne yaa ma neex la bam bam ba mu toll fii nag ba sénégalais yi gis ne lim lim lim liggéey dara baaxu ci mu xëy bëgga a forcé waat ne day falu loolu ma yaakaar naa sénégalais yi duñ ko nangu te ku ne xam ne ne mënut a jàll premier tour mënut a nekk sax ndax koo xam ne mënoo dox ba dajeeg nit ku loo xam ne bëgg na la nii rek képp koo su ànd Macky Sall leen mën a nekk rek day liggéey ci état waaye mënoo dox ba gis Sénégal lam daal nii bu ànd ak Macky léegi nag loolu bu programme ay résultats am 54 pour cent génne ko loolu yaakaar naa benn Sénégalais du ko seetaan ci yaakaar naa tamit arme bu ñu ko topp te tamit lenn ay man a nekk rek sàcc élection yi sàcc woo xam ne dañuy xëy comme ni Touba ni mu ko organisé changé nañ bureau yëpp kenn ku nekk daanaka fa nga bindoo ak fa ngay watee du bokk loolu nag bu ñu yendoo jàmbat ba ngoon mu forcé loolu de kenn waru ko nangu suñ si suñ Muntaxa na jàmm am ci réew mi gëm nañ ne jàmm dina am waaye gëm nañ moom it jàmm ji mooy moom mu nangu na gañe nañ ko mu félicité ko ko gañe ni ñu daal di ni ñu ko daa defee jàmm mën a am. loolu nag leneen bu bu deful leneen loolu yaakaar naa dafi indi day indi fitna ci yaakaar naa moom sax fitna jooju yaakaar naa waru ko bëgg ndax koo xam ne boo boo boo demoon ci normal normal sax. yaakaar naa du tax sa ginnaaw sedd boo ci booleeg yëngal fi ne ci réew mi da ngay gën a indil sa bopp problème. ginnaaw bi xamee ne que an yow sa mouvement. Mm-hmm. Mm-hmm. ndax mën nañoo xam ci élection yi ñu jëm nii kan ngay jàppale. man élection yi jëm maa ngi fas yéene jàppale Madické tax mi tax ma fas yéene koo jàppale mooy li ci njëkk mooy mbooleem lu Abdoulaye Wade réussir moo Madické Niang ñoo ko ànd lépp bilan bilan Abdoulaye Wade rek loo tudd rek loxol Madické Niang mi ngi ci rawatina digganteem ak kër diine yi. ba dikk ñaa mooy gi nga xam ne juboo naa kër yi ne yëpp ndax bu ñuy am murit mooy ni ab jullit dëgg war a mel mu dikk ñaa mooy murit dëgg ndax moo doon avocat Cheikh Tidiane si nekkoon avocat Sëñ Saliou nekkoon avocat nit diine yu bari doon nit koo xam ne nekk nit koo xam ne xam na réew mi ba pare tamit du toppante doon nit koo xam ne dafa xam dëkk bi ni mu tëddee réew mi ni mu tëdde doon nit koo xam ne ku amu yëg la am yërmaane ñu waxtaan tamit bu ginnaaw bu taalibe gi jàll ndax néew ma sart bi may ànd ak moom nga doon taalibe waaye damaa xam ne bokk na ci nag nit ku xam njàngale Sëriñ Tuubaa gëm njàngale Sëriñ Tuubaa bu ma sañoon nag koo koy falu ndax njàngale Sëriñ Tuubaa laa gëm ne mooy njàngalin bi gën a processus bi gën a baax ci yarum réew. sa biir kàddu nee nga Daaru Salaam kontaan ci njiitu lan moo nekk manquement Daaru Salaam. Daaru Salaam Daaru Salaam du dara du forage Daaru du ay tëli yu baax Darou Salaam 1980 1981 la Darou gën a am gën am gën a am bu baax benn wax naa dagg tëli bii boo xam ne mu du un kilomètre benn tëli fi nekk depuis 1981 ca Darou Salaam mën ngaa tudd yoon mu tudd Darou Salaam muy première dëkk bi sëñ Tuubaa njëkk a sëñc. mais DER bi ñuy wax ak yooyu noonu est-ce que agsi fi dara rek loo xam ne agsi na Darou Salaam amut léegi nag meeting bi mu war a ubbee fii de ci campagne war ko defee fii ci boulevard bi foofu mi ngi bokk ci titre foncier Maam Chanta waaw loolu nan ngeen si tuit que ne ngeen déclaré ngeen ko persona non grata ci Daaru Salaam. waaw nan ngeen fas yéene def vu que le le 3 fii lay tijjee campagne am. damaa fas yéene ne ko foofu titre foncier maam sant ci la bokk. numéro titre foncier bi bu ko laajee maire Mbacke bi Aliou dina ko wax foofu suuf maam sant la duñu bàyyi mu def ko fa. nan ngeen di da ngeen koy saboté. dina dina dina dina am ñu jàmmarloo ñu bari ñoo xam ku ko dégg dina xam ne ne moom balaa ñëw dina xam du yombe noonu te nag bu amee jom wala ngor nit diggante wu dootaam ñëpp xam nañ ko dëggoo gi diggante wu dootaam dëggoo gi ñëpp xam nañ kon moom ngorom ak fullaam waru koo may muy ñëw ci suufu dootaam di fi def di fi def boo fa def ban taxawaay ngeen waaw dina dina am lu ci xew lu bari bala ñu egg dinañ ko xam incha allah ay ay yëngu dina am barki dem mu inauguré fi benn autoroute Ila Touba bi 416 milliards mhm. euh, mu jëm si tuuba ak euh, Darou Salam ak Mbacké mhm. nga ko gisee autoroute Ila Touba lu ñuy jaay la ñuy fay bu doon ni yéeneem feneen la koy def tubaab bi Sénégal yi mu ko seqal ñoo xool ne fii mooy fi gën a gaaw ñu fay ko moo tax mu def ko fi te jëmul tubaa day jàll day jàll maatam te li gën a doy bu jàllee Matam diggante Matam ak Touba duñ fay kon waa Matam ñu jàll jëm Matam ñu leen fayaleel bu fekkoon lu muy defal tubaa la Macky Sall bi mu bi mu nekkee président gi léegi lu mu inauguré gun Touba inauguré wu fi ab hôpital de lu tee mu def hôpital hôpital lañ gën a soxla lu tee mu def ndayu Touba 70 pour cent ay ndaw lañ tax wutal wutal leen fu ñu liggéeye kon li Touba soxla deful leen ko kon moom nit boo koy defal danga koy xool la mu gën a bëgg nga defal ko Macky Sall li Touba soxla deful leen ko ay fajukaay lañ gën a bëgg ak ndaw ñu liggéey deful leen ko. la trois boobu euh, Macky Sall wala ubbi campagne am fii. Mm-hmm. Mm-hmm. suuf su ci la Madické Niang maître war a ubbi campagne mm-hmm. ngeen ni da di. taxaw jàmmaarloo ak président Macky Sall pour saboter loolu. Mhm. ndax loolu du APC seen seen. waaw xam nga li may li may njëkk ñëw damay ñëw ci la Madické Niang moo xam ne moo lañ suñu candidat te ñu bari naa diggante ak Ablaye Wade dañoo am réero Ablaye Wade ak Madické Niang amuñu génn réero ñu ngi diggante loolu diggante bi ñu ne fii la ci xam nañ ñooñu te nañ bàyyi seen intérêt personnel yi nga xam ne moo tax ñu dugg ci waaye diggante Ablaye Wade ak Madické Niang dara sikku ci seen diggante ñi ngi déggante déggante bu baax. maître Madické Niang ngay àndal war a mobiliser ci seen ouverture campagne le 3. Mm, mm, mm. président Macky Sall war fi def euh, campagne le 3. ngeen bëgg a saboter. nga may ma wax ci Madické Niang moom nga ne ma mooy sa candidat Madické Niang la ñu fas yéene jàppale te muy candidat boo xam ne gëm naa ne moo gën ci réew mi. sëñ bi am na loo xam ne c'est que propagande mooy tax quoi boo ko waxee duñ ko mën a teg Mhm. donc répondre la ci li muy lan par exemple liñ la laaj ne la kay ban position ngeen def puisque nee ngeen déet <laughs> neel yow doo ko mën a teg waaye dina am ñu ko mën a teg déedéet a waaye dina am ñu ko mën a teg waaye dina am ñu ko mën a teg waaw luy sa luy sa laaj li bëgg xam mooy. nag ci même bi. waaw ñaari meeting da ci am. benn boo ko yaakaar ak la coalition Madické 2019. Mm. ban taxawaay ngeen am ci jour boobu. loolu loolu ba léegi wuute am nañ ci wuute ci ne benn bis la loolu dëppooguñ ci. mën naa mën naa wuute ñi mën nañoo def tey ñi def si suba xam ne mooy Madické ñaar nag boobu moom la ñu waajal fas yéene mu am ci ndam réussite ci ñu ci woon ak taalibe yëpp ak Sénégal yëpp li ma ne Madické gëm nañu mooy candidat bi gën ci candidat yi ñun moom la ñu fas yéene jàpp la fas yéene koo liggéeyal fépp yaakaar ne tamit li mu liggéeyal Sëñ Madické Niang li mu liggéeyal sëñ Tuubaa liggéeyal ko Sénégal yi liggéeyal ko yoon wi yaakaar naa murid duñ ko wan duñ ko war yaakaar naa te liggéeyal na sëñ Tuubaa lu tax nag murid yëpp jàppale ko waaw président bi am na lu ci junj mais leeralal mhm. nga kontaanu leen ci ñoom ñoom lan ngeen ci nësëb clairement quoi li liñ ci nësëb mooy fas yéene sa wote ko